bu ko jaree sax ñu wàññi suñu jox bi ci des it dañu am dañu am naqar démb. awtis muy way juróomant lay. moo mm-hmm. génn àdduna. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. waaw loolu it nag Baye Cheikh. Mm-hmm. lu tiis la. Mm-hmm. lu tiis la wax dëgg yàlla lu tiis la. tiis na tiis na trop wax dëgg yàlla. waaye nag. Mantoulaye day bokkul ci ñi seen way jur di wan ginnaaw. ñuy rëccu naan ay bu ñu yëgoon. waaw ñoo ko seede wallaahi bokkul ci ñu seen waajur di wan ginnaaw mhm. ñu naan cey bu ñu yëgoon wallaahi ba mu jotee de def na lam man taxawe na na mu war a taxawe mhm. ñun ay seede lañu ci dëgg la mhm. lekkul naanul yenn lalul fanaanul la yenn saa yi mu ñëw jaxasoo jaxasoo mën ko defal zikr nangam jaan yow mii ba benn jour nga naan ko delloo wax nangam ah, wax nangam euh, bëggul lekk bëggul naan déedéet déedéet yal na ko yàlla fay taxawaayam wallaahi dëgg la wallaahi amiin yaa rabbal waaw yal na ko yàlla fay taxawaayam amiin yaa rabbal alamin ah way jur de moom Baye Cheikh lu ci waay def yée pertoo ko de da nga koo leble pertoo ko de way jur way jur ci ay jëf ak ak leble la wallaahi mantulaay ku ne xam ne ni meloon ci way jur waajuram hmm, hmm. fii lañ daan toog tës hmm. bu ñu nee nañ dem élément fii la ñuy toog di nax di nax di nax di nax di nax di nax ba ba ba ba fombal koy rangoo te nit ñi duñ si rendre ñu duggaat ci tës bi wax suñuy wax te fekk ne ndeysaan wax na ci way juróom jooy jooy yu métti métti benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ndax tolluwaay bi mu amoon léeg-léeg mu toog bu ne waa man sama yaay bu bu bu dee fu ma jëm jooy ñu nax nax nax nax nax nax ba ay rangoo ñoom fendi ñu duggaat ci tës bi nit ñi duñu xam li xew waaye li nga wax Mansour rek. Mhm. Mhm. Euh, bisu demb bi tiis na ci moom. Mhm. waaye fekk ay fan. dana xam. dana xam li mu daan daj ci ndeyam. <laughs> wallaay ndeysaan jur balaa ngay xam dëgg dëgg dëgg dëgg. wallaay ndeysaan yàlla na yéex bu la wanee ginnaaw. ci ngay gis sa liggéey nag. wallaay dëgg la wallaay dëgg la ngay gis sa liggéey man jëf ak sa yërmande amoon ci moom. wallaay la bu fekkoon nag danga naan fooyee sa ndey baa di fooyee sa baay. buñ la wanee ginnaaw. <laughs> di nga xam di di di nga jot njuréef la. alhamdulilah da koo dalul. alhamdulilah macha allah alhamdulilah rek lañ koy wax. alhamdulilah dëgg la suñu yaay jëpp mu mottale dundam ci aljani génn. amiin yaa rabbal alamiin alhamdulilah binti rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doon wéttalam. amiin yaa rabbal alamiin. alhamdulilah ñu ngi lay masaw bu baax a baax a baax di bokk yow tiis. wallaay ndeysaan. ñëpp bokk nañ ko yow nag ñëpp. wallaay ndeysaan. ñi ñëwut ñi ñëwut ñi ko yëg ñi yëgut ñëpp ngi ñaan. ñëpp billaay. wallaay ñun ñii nekk yow suñ téléphone yi da doon toj. wallaay dëgg la. ku nekk naan ñu dëj bi fan la ak njaal bi fan la. wallaay dëgg la ñëpp ñëpp ba ci suba rek li ma jot ci ay message hmm. ku si nekk di ko jaal ki nga xam ne moom mooy euh, euh, mantu ndax ñàkk yaay dafa metti hmm. Hmm. yaay ak ah, surtout dañuy faral di wax doom bu jigéen ndey ji mooy royukaay bi ñu gis mantu nu mu ci nu mu bëgguma wax sax nu mu ci sonnee parce que daf ko war waaye bu la waroon te defoo ko it ci lay gën a metti ci sant yàlla ba mu xamee ne daf koo war mu def ko wala mu dem te te liggéeyloo ko dara nga am gàcce gisa mantu euh, wax fa dëgg neex yàlla waaye it euh, boole métti bi nga xam ne moo nekkoon ci ci moom dañ comme ni ngeen koy waxee rek mm-hmm. yàggul fii lay toog mm-hmm. di wax boo tuddee yaay ji rek jeex na mm-hmm. mu commencé jooy jooy jooy jooy jooy mais après ñu andiwaat ko xamal que ne euh, looloy àdduna yàlla bu ne waaw ku ne dee da ngay sonal da ngay sonal lay dëgg sa sa bopp tey moom moo aye te xam naa ne ëllëg moom it dina naxi ji keneen koo xam ne lu ni mel dana ko dal ndax demal maa ngi ñëw la rek y na yéex yàlla il y donc massa massa maintenant na mais bon c'est la vie elle est ainsi faite sunu xarit sunu xarit tamit euh, Kabir Sène Kabir Sène waaw Kabir Ben.